wàcce alquran ji ci laylatul qadr ñoo wàcce alquran ci laylatul qadr wàcce alquran ci laylatul qadr mooy wàcce gi nga xam ne moom la alquran wàccee joge ci lawxul mahfuz daa di agsi ci fi nga xam ne mooy asamaan si gën a jege ci ndigalul borom bi subhaanahu wa di xaar jibril alayhi salaam di délivrer alquran saa boo xamee ne yàlla jox na ko digal mu ñëw wàcce dara wàcce gi nga xam ne moom la jóge ci lawxul mahfuz ñëw loolu ci génn guddi la xew guddi googi nag mooy laylatul qadr laylatul qadr ak guddi la goo xam ne ay waxtoom ak i minitam ak i sekkanam moom yëpp yam ay melokaanam it am na ay màndarga yu nëbb leeg léeg ndax nee nañ température bi wala li nga xam ne mooy weather bi dana changé ci ñi nga xam ne am nañu takk waaye loolu nag jëlewuñ ko ci alxuraan jëlewuñ ko it ci loo xam ne lu ñu mën a jàpp torop torop la waaye si na ko yaakaar laylatul qadr mooy guddi gi gën ci mboolem guddi at bi trois cent soixante cinq jours yépp lu tax mu gën ci parce que ci la alxuraan wàcc sànq njëkk ñuy tàmbali waxtaan bi nee naa alxuraan weer bi weer bi mu wàccee moo gën ci weer yëpp waaye guddi gi mu wàccee moo gën ci guddi yëpp waaye ki mu wàcc ci moom moo gën ci nit ñëpp waaye malaaka mi ko wàccee moo gën ci malaaka yëpp moom téere bi moo gën téere yëpp alquraanul karim alquraan ji yàlla ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka xam nga feneen dafa wax ne ñun ñoo ko wàcc ci guddi gu bari barke guddi gu bari barke nag mooy guddi gi laylatul xadr guddi goo xam ne ku ci jaamu yàlla ba ñu nangul la ko mel nga ni dangaa jaamu yàlla juróom-ñetti fukki at ak ñett yoo xam ne yàlla nangul na la lépp muy quatre-vingt-trois ans moo tax démb ma doon wax naan am na ñu ko jàppee démb am ñu ko jàppee tey waaye yàlla na nekk ñaari yëpp yàlla na nekk ñaari laylatul xadr nga xam ne boobaa day nekkoon cent soixante-six ans yoo xam ne kon boo kàccee ñaar yëpp rek yàlla nangu la loolu lépp si ay jaamu yàlla boo misee benn am 83 boo jàppee ñaar yëpp kon daa sa mi no sense right so kon waaye yàlla nekk ñaar yëpp rek maanaam yàlla na ñëpp am su ma góor góorgóorloo fee làmbatu bu dul fii ma ma jàpp fee rek waaye li gën a wóor daal ci ab jullit mooy tàmbalee ko the first night to the last night bis bi seen nga góorgóorlu xattaa jigéen joo xam ne am na bis yoo xam ne xëy na du mën a julli yaay Aïcha dafa laajoon yonante bi sallallahu alayhi wa ne ko su déwénee bu ma fekkee laylatul qadr lan laay ñaan mu ne ko da ngay wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bu dee jigéen joo xam ne mënta julli ñaan googu mooy gi ñu gën a sopp ci moom mu koy teewlu ci ab xolam yàlla yow mi nga xam ne yaay ak njéggal te bëggum jéggal yàlla nag ma jéggal di ko teewlu sa xol boo demee ba doyal ci boobu nga jël beneen ñaan lu mel na subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala sax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na day leen noté subhanallahi wa bihamdihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ko wax téeméeri yoon ci ab bis ñu jéggal la say bàkkaar doonte dafa dafa bari ba toll ne vague gi géej gi subhanallahi wa bihamdihi ku ko wax téeméer yoon ci benn bis yàlla jéggal la say bàkkaar doonte dafa baree baree bari ba toll ne vague géej gi mooy douche géej gi douche géej gi ni muy def fëf fëf fëf nga toog di compter ci benn jour nga xam ne par seconde lay dikk say bàkkaar doonte dafa ta dafa bari ba toll noonu moo tax euh, lu mel ne guddi gi boo mënta julli yow soxna si wala comme man di doon mën nga di jaar moo tax alquranu karim ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran chahru ramadan alladi unzila fihi alquran maanaam weeru ko mooy weer wi nga xam ne ci lañ wàcce alquran alquran jooji nga xam ne hudal linnaasi ci la jugub nit ñi nekk wa bay bayyinaatin min al huda ak lu baree bari ci loo xam ne ci la orientation générale yi di bàyyi ko kon alquranul karim eh, yàlla daf ko wàcce lumb lumb mooy globalement jële ko ci lawxul mahfuz andi ko ci ilal baytil izza al baytul mooy asamaan si nga xam ne nee nañ mooy asamaan si gën a jege wàccuwaay ci nit ñi nga xam ne asamaan soo xam ne lu fa jóge rek mën naa ak ci suuf kon alquran dafa wàcc globalement jóge ci baytul izza waaye tamit daal di ñëw ci ah jóge ci lawxal mahfuz ñëw ci baytul izza bi mu ñëwee ci baytul izza nag fa la nekk jibril di dagg di indi di dagg di indi ba alquran jëpp daal di wàcc mhm. kon bi muy wàcc ci baytul izza jóge ci baytul izza moom dafa wàccee tafsil tafsil mooy par détail par détail euh, euh, mooy loo xam ne yàlla day day indi lii ëllëg mu indi lii ëllëg mu indi lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko dajale ba mu mën a nekk loo xam ne ah, ab kaamil la ñu koy jàng tey temps bi nga xam ne moom la wàcc après bi mu wàccee ci baytul izza kon ñëw gi mu ñëw ci baytul izza jóge ci lawhul mahfuz loolu mooy laylatul qadr mooy guddi gi nga xam ne moom la yàlla def ci biir weeru koor waaw te yàlla nag définirul définitivement ban guddi loolu nag bu fekkoon ne tey jaam yi xam nañ ko kon man de damay toog ba bis ba dikk rek ma jaamu yàlla ne yàlla jéggal ma ndax bis la boo xam ne nee nañ malaaka yi alxuraan nee na malaaka yi dañuy wàcc malaaka yi dañuy wàcc même malaaka yi dañuy wàcc physique ñu leen di gis ngir di tinul jaam yi xoolal même même bu dul bu dul bu dul bu dul weeru koor sax nee nañ xaaj bi nga xam ne ci la ñuy jaamu yàlla même bu dul weeru koor yàlla day wàcc ba si asamaan si nga xam ne mooy baytul izza ba jege si xaaj bu mujj bi lu ko tàmbalee deux heures de matin jëm fajar yàlla day wàcc di xool ay jaamam yi nga xam ne dañoo jàpp jog julli di ko ñaan mu leen di may du rejeté seen ñaan kon rawatina bu dee weeru koor rawatina bu dee guddig laylatul qadr yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas naa jóg benn bis pour dem xibaar yi nit ñi ban bis exact li mooy bisub laylatul qadr waaye mu dégg ab histoire mu nekk di lijjanti ba fàtte bis ba ba fàtte mandarga ya nga xam ne moom moo ko feeñ woon waaye jàngale na ba ngeen koy làmbatu na ngeen gën di ko làmbatu ci fukki fan yi mujj yi fukki fan yi mujj yi nag damay faral di wax na mooy fukki fan joom yi fukki fan yu joom yi nga xam ne ñu baree bari seen énergie jeex na seen motivation jeex na ñu baree bari amatuñ kàttan ñu baree bari ñoo ngi tàmbalee miin liñ doon def ba tàmbali sax delluwaat ci caaxaan yi waaye yàlla daal jël laylatul qadr daal koy dugal foofu pour motiver it ñu pour ñu gën a sawar mooy fukki fan yi nga xam ne borom jomm maanaam jomm fi la ñuy xamee jom ndax da ngay toll foo xam ne daanaka ñëpp jeexal nañ ñi man da dangay gis ñoo xam bu ñuy dox sax mënatuñoo yëkkati seen tànk yi ngir sonn bi ñuy sonn waaye nag borom jomm yi nag foofu la ñuy gën a góorlu moo tax ci biir fukki fan yi mujj yi si système u euh, sunna sunna daal di indiwaat li ñuy wax li'tikaaf li'tikaaf mooy lan maanaam nga di kër ga féete ci jàkka ji wala nga ëppal looy nekk ci jàkka ji ngir jaamu yàlla rawatina guddi gi ci diggante jàng alquran ak julli ak salaatu ala nabi ak istighfar ak yu ni mel te fukki fan yépp doo génn jàkka ja ba bis bi nga xam ne mooy matin bu korite gi nga door a génn daal di jóge ci jàkka ji dem bu boobaa na nga am liberté dellu ci li nga xam mooy sa kër yàlla nañu yàlla xéewalee ñu dem a ba mën a def li ci suñuy barab bokk na ci mébét yi nga xam ne moom lañ am nga xam ne lu mu bon bon danañu am groupe boo xam ne dañuy resté si jàkka ji 10 jours yu mujj yi pour di jaamu yàlla bu boobaa mën nañoo indil yeneen opportunité xëy na ñëpp duñ ko mënandoo waaye at bu jot ñu jël ñenn bu ko ndax mësuñ koo def man mësuma koo def ci bari mësuñ koo def tey war nañ koo def nag buñ ko mënee insha allah taala kon guddi gi nga xam ne mooy guddi laylatul xadr yàlla nee na inna anzalnahu damir mooy lan yaawdu ila waaye nag kenn tudd ko damir bi ci alquran lay dellu fii laylatul xadr guddi googi wa ma adraka ma laylatul qadr yàlla nee na yonente bi ana lan moo la xamal laylatul qadr wala xanaa bëgg ngaa xam lan mooy laylatul qadr de am ñoo xam ne dañ ne mooy firi maanaam ay nattale ab dogal comme liñ naan al imaanu bil qadar maanaam mooy guddi dogal lu tax ñu tuddee ko dogal parce que nee nañ yàlla ci lay programme mbiri jaam yi di ko wàcce maanaam yi nga xam ne mooy mooy xew ci jaam yi nattu yeeg yi wàcc ak yi dal nit ñeeg programmation suñu borom subhaanahu wa taala yàlla foofii la koy nattalee aussi mooy kenn ku nekk li war a xel ci yow fii ba dee nag ñu ni mel am ñoo xam ne kon dañ ne mooy moo tax ñu tuddee ko al qadar inna anzalna fi laylatul qadar wa ma adraka ma laylatul qadar lan mooy guddig laylatul qadar wa ma adraka ma laylatul qadar ana lan moo la xamal lan mooy laylatul qadar xanaa bëgg ngeen a xam ñëpp daa taxaw daane waaye yàlla lu tax mu ne laylatul qadar mu ne laylatul qadri guddi googu yi nga xam ne moom lañ tuddee guddi qadar day xayrun isbera min alfi shahr is better than thousands month thousand month muy junni weer loolu mooy quatre-vingt-trois ans yu tegal euh, yu tegal yu tegal ña yu tegal trois mois aussi maanaam quatre-vingt-trois ans yu tegal yu mat sëkk yoo xam ne boo ko boo ko calculer loolu la lay jox laylatul qadr bu la yàlla baaxee at bu jot ngay góorgóorlu ci sa dund ginnaaw bi nga matee mu kallaf weer bu dee nga góor góorgóorlu ci koor gi imagineel nga toog dix ans yoo xam ne koor gi yépp da ngay naafi la guddi dix ans yooyu nga daal di nga toog di ko jaamu yàlla ba nga xam ne dix ans yëpp wóor na la moom euh, ndax laylatul xadr mi ngi ci benn ci guddi yooyu kon chaque année daal ci ndimbalal yàlla kon màng nga laylatul xadr kon léegi bu boobaa nga xam ne kon da ngay mujj am euh, maanaam huit huit cent ans yoo xam ne yow yàlla baaxee na la ko nga fekke ko laylatul xadr nga fekke ko laylatul xadr dégg nga bu boobaa nga xam ne da ngay am euh, eight eight hundred yu tegal ci ay at yoo xam ne yàlla jox na la ko nga am ko ci li nga xam ne mooy ay yiw ay tuyaaba yoo xam ne yàlla bindal na la ko aha xam nga Euh, dafa mat di bàyyi xel ndax li gën a tax muy mat di bàyyi xel mooy euh, gis nga ñaar yonent bi sallallahu alayhi ci xadiis ñaar danañ bokk la def ak gëneel nekkul ci seen diggante ñoo bokk nañu baaxe ñoo bokk nañu jaamoo yàlla ñoo tolloo lépp ci ay ngëneel waaye ëllëg yowmal xiyaam kenn ki ñëw ëppale moroomam moroom ji di ko laaj ne ko yow man ak yow ñoo tolloo woon lu ñu doon def di ñoo bokkoon dem jàkka ja ñoo bokkoon di def lépp lu tax nga ëppale ma ba fekk ki ëppale ba dafa gën a gudd fan ki ci des maanaam kee dafa faatu bi mu faatoo fekkeetul koor kee moom yàlla baaxee ko mu gën a gudd fan fekkee beneen koor koor googi noonu rek moom lay ëppalee tuyaaba moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon ñu ne dund gi gën ci dundu doomu aadama mooy dund goo xam ne gudd fan nit ki daa gudd fan ba noppi màng ko ci lu baax ndax at bu jot rek bis bu set doomu aadama bis buy dund te bis bu set ak dundam mu def ko ci joomu yàlla jaamu yàlla day gën a am ah, maanaam day gën a bénéficié wu ci suñu borom subhanahu wa taala di gën a am tuyaaba more you live in good things more you get good rewards insha allah taala kon dund gi gën ci dund doomu aadama ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee mooy koo xam ne am na fan wu gudd waaye jeexal ko ci topp yàlla kooku moo gën le ki nga xam ne fanam gàtt te mës a def bàkkaar kon yàlla nañu yàlla may fan wu gudd ànd ak suñu borom subhanahu wa taala moo tax yonent bi salaa salaam bu koor masaan dikk daan wax naan gars weeru koor agsi na de weeru koor agsi na ci yéen weer bu bari barke la lan mooy barke inna anzalnaa fi laylatin mubaaraka weer bari barke waaye barke weeru koor gi yëpp guddig laylatul xadr moo ko yor weer bu bari barke yàlla farataal na ci yéen ngeen woor ko yàlla farataal na ci yéen ngeen woor ko day ndeysaan alhamdulillah gars yi daal di yéene fës day intention góor jigéen ñu daal di yéene rek di jéem a sellal di jéem a sellal di jéem a sellal di jéem a sellal ba alhamdulilah ñu jeexal koor jigéen ñi bu ñu demee ba am ngant yàlla na leen aywa am ngeen ngànt dee leen lekk dee leen naan bu leen julli bu koor gi jeexee balaa déwén ngan la waaye góor-góor leen ngeen fay juróom benn fan juróom-ñaari fan yi nga xam ne moom ngeen misoon ci koor gi wóoru leen ko woon julli geeg woor gi nag moom maanaam julli gi nag moom bu leen ko fay waaye koor gi moom na ngeen ko fay ndax am ngeen trois cent soixante jours au moins pour fay ko wala am ngeen trois cent trente jours au moins pour pour fay ko kon da ngeen ba fay ko su doon da ngay def weer bu nekk sax nga fay benn fan sax <coughs> weer bu ne benn fan <coughs> balaa déwén nga fay lépp ba fay extra ba woor extra mhm. kon mu ne weer wi dikk na te weer wu bari barke la na ngeen góor góorgóorlu na ngeen di woor yàlla farataal na ci yéen woor yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan weer wii kat tuftaxu fii abwaabul janna ci la yàlla di ubbi bunti àjjana yi bunti àjjana yi ci la ko yàlla ubbi yàlla di ubbi bunti àjjana yi waaw ah, soo góorgóorloo rek na yarax dugg bunti àjjana yooyu nag am na benn bunt boo xam ne rayyaan lañ koy tuddee rayyaan rayyaan ab benn bunt la boo xam ne kenn mënu faa dugg ku dul ñi nga xam ne dañ daan sax ci woor aha tuftaxu fii abwaabul janna wa tuxlaxu fii abwaabun naar yàlla neen yontu bi ne bunti safara yi tamit dañ koy tëj ci bu ci ci ci ci bis ci weeru koor gi yëpp ci weeru koor gi yëpp xanaa kon xanaa mooy kon ku faatu dugg àjjana waaw koo xam ne jullit boo xam ne da doon woor daa di faatu ci biir weeru koor yàlla dogal bi mu faatoo ñu koy àtte gis ne bunti safara yi dañ koo tëjoon bunti àjjana yi dañ koo tijji kon kay fa tijjeeku rek lay dugg insha allahu taala moo tax ñu yaakaar ne ku faatu ci weeru koor tey ab jullit àjjana rek la jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam weer wii ci la ñuy jéng seytaane yépp jéng maanaam dañ leen di yeew comme yeew gi ñu xam rek ndax noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee yeew gi ñu xam ba nga xam ne ñoom duñ mën a kurti kurti waaw waaw gi ñu xam waaye malheureusement léeg-léeg mu ci doomu aadama yi ñoo xam ne day beddu wis seytaan <laughs> day beddu wis seytaan maanaam ndax weeru koor gi dañuy mel ne dañoo gën a ràkkaaju te seytaane nekku fi léeg-léeg mu am ci doomu aadama yi day beddu seytaan maanaam bu ñu jéggul seytaan yi sax ci la ñuy gën a jub mhm. yàlla nañ si yàlla musal yonte bi salaa sallam nee na ci biir weeru koor ci la guddi googu nga xam ne yàlla nee na moo gën junni weer ci jaamu yàlla gu ñu nangu ah yonte bi salaa sallam ne man xurima xayraha faqad xurim képp koo xam ne ñàkk na ñàkk na yiwu laylatul qadr ñàkk na aw yiwu rëy woo xam ne amul fenn fu mu ko mën a dabooti xanaa déwén te déwén kenn xamul ba xam dana la fekk wala du la fekk na nañu fekk loolu la ñuy yaakaar wa ala kulli xaalin ci biir jullit ñu koy woor am na ñu baree bari ñoo xam ne da leen fi fekk déwén am na ci ay jeune am na ci ay góor am na ci ay jigéen dégg nga with goals with goals ñu bari with goals ñu bari ñoo xam dañ ko fekk yàlla bu mu nekk kenn ci jàkk ji nag kon nag comme que kenn xamul moo tax ku nekk war ngay góorgóorlu ndax xamoot ba xam da amaat beneen opportunité ba kii kon ñi leen di ñi leen di yokk soññu ndax yaakaar nañ ne gën gaa yàgg altine duñ ko woor nañ gën a muñ gën a dem ci jàkka yi jàkka ju la gën a jege anytime dee fa dem del julli jàkka ju nekk sa koñ nga xam ne boo doxee dix minutes yegg fexeel ba jàkka ja xam la bépp jàkka bu nekk sa koñ ak nga xam ne boo doxee dix minutes yegg fexeel ba jàkka ja xam la bu fekkee ne jàkka jooju dafa nekk jàkka joo xam ne boo fa nekkee doo dégg la ñuy wax demal fa ngay déggee la ñuy wax fa la gën a jege nga nga fay nga fay nga fay dolliku te ngeen góor góorgóorlu xam ne buñ naa fi tey jii xiyaam mm, nga xam ne suba la ajjuma daal di naafila waat ajjuma samedi incha allahu taala yaakaar nañ ne ñett xiyaam mooy maximum bi kon nañ góorgóorlu te mën naa am sax is tonight mannaam is tomorrow mannaam is the last one le Allah knows kon góor-góor leen même boo demul jàkkee it fexeel bul nelaw guddi gi yëpp na nga fexe ba def dara ci jaamu yàlla kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp kon ñu